ginnaaw bu ñu ci cheytaane suñu noon bu mag boobu ñi ngi tàmbali suñu wax ci turu borom bi subhanahu wa taala borom bi ñu may kàttan may ñu wër may ñu mën ba ñu dellusiwaat fii ci seen émission jotaay diine ñuy baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di julli ci sangu-sang yi seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ay àndandoom di ñaanal suñu way dawli yi yàlla yërëm leen xare leen àjjana di si jiital suñu imaam Alioune Badara Ndaw mi nga xam ne jóge na fi bërki démb di ko ñaanal yàlla lu baax li mu doon def ak alxuraan bi nga xamante ni moom la doon jàngale yàlla na ko alxuraan ràmm yàlla xare ko àjjana ak képp ku fa fekk ak képp ku ko fa fekk lim doon def ci lu baax yépp yàlla bu mu réccu lim ko doon def fii ci àddina ak mboolem jullit ñu ñaanal suñu mbokk yi ci prison yàlla may leen liberté ñu dellu seen famille di ñaanal malade yi ci hôpitaux yi ak ci kër yi yàlla saafara leen delloo si leen seen sago bañ a tëral kenn euh, di nuyu ñëpp waa HLM Thialy di ko teg nuyoo bi si loxo Adja Mame Yacine Diagne ginnaaw loolu ñu ñëw ci suñu émission boobu di Prestige Thiès euh, di euh, jotaay diine fii ci Prestige Thiès tey nag ñu indi woon benn thème tem boo xamante ni euh, dañoo jëloon tawxiit tawxiit nag mooy wéetal borom bi subhanahu wa mooy bañ a ak borom bi subhanahu wa dara mooy bañ a yemale ak borom bi subhanahu wa taala ak kenn wala ak dara mooy xam ni borom bi subhanahu wa moo gën a kawe lépp lu mu mënti doon moo gën a kawe képp ku mu mënti doon amul maas amul dend mooy gëm ni borom bi subxanahu wa taala mbindam kenn du ko yemale ak dara maanaam gëm ni moom mooy ki bind lépp te nu ko neexee la koy binde saa yu ko neexee la koy binde te kooku amul ci maas ndax amul kenn ku mën loolu. ci tawxiid ba tey ci ngay gëmee ni borom bi subxanahu wa taala melokaanam kenn du ko tëqaleeg de kenn kenn ko dendaleeg dara xam ni moom rek moo am melokaan bi mu am. waaye amul maas ci melokaanam gëm aussi ni ay mayam moom rek mooy ki ko am moom rek mooy ki ko mën li mu mën dend dendu ceeg kenn amul keneen ku mën li mu mën ci noonu ngay gëmee tam ni borom bi subhanahu wa taala ak dogalam lu mënti am ci yow rek doo dendaleek yàlla subhanahu wa kenn doo ko dendaleek dara ba ba dara dal la nga war ko mën a féetale feneen waaye ci tawxiit mooy tax ba bu la dara dalee ak lu mu mënti doon muy lu neex muy lu naqari dangay xam ne borom bi subhanahu wa taala rek moom mooy kiy dogal amul keneen kuy dogal lépp lu la dal nag ndogalu àddina ak ëllëg fa nga nar a mujjee yàlla rek mooy ki ko mën mooy ki ciy def li ko neex moom moo lay jox lu ko neex ci àddina boo dekkee aussi yomal xiyaam moom moo lay ki mooy ki lay dugal fi ko neex donc boo amee tawxiit ci ngay mën a gëmee loolu kon loolu mooy tawxiit tawxiid nag boo gis li tax ñu indi thème bi ci jamono ji dañu nekk ci waajtaayu benn événement fii ci Sénégal événement boo xamante ni bu rëy la muy lan muy dañoo jëm màggal Touba màggal gi di lan muy célébrer exil bi nga xamante ni def exilé woon nañ ko euh, suñu maam Cheikh Ahmed Bamba Mbacké génn ko Sénégal doon ko yóbbu fële ca Gabon li tax ñu indi ko mooy képp kuy màggal yi moo xam danga nga bouger dem fenn wala danga toog fi nga nekk di ko fa màggale danga war a xam kan mooy Cheikh Ahmad Bamba xam digganteem ak boromam subhanahu wa xam fi mu tolloon ci tawxid loolu moo tax ñu indi tem boobu pour képp kuy waajal bés boobu nga xam kan mooy ki ngay eh, célébrer màggalam googu ndaxte jullit warul dem ci làmbatu jullit julit warul dem ci mbumbay rek gis ñepp di dem rek jaar gauche ma jaar gauche wala nga gis ñepp di dem jaar droite rek mani ni damay jaar droite lolu du doxalinu jullit jullit lepp lu muy dugg dafa wara xam lan la lepp loy soob rek da nga wara xam li lan la lutax makoy def ak lan la ci jële su ma ko defee la julit di doxali motax kep kuy dem waajtaay kuy dem magal war nga xam naka ngay waje ak lan moy magal ak kan ngay màggali suñu maam jooju di Cheikh Ahmad Bamba dafa takkoo woon taxawit euh, euh, dafa dafa nekkoon koo xamante ni ku gëmoon borom bi subhanahu wa taala la nekkoon koo xamante ni ku wéetaloon bi subhanahu la nekkoon koo xamante ni yemalewul woon ak borom bi subhanahu wa taala ak dara wala mu yemale ko ak lenn dafa yëkkati won borom bi subhanahu wa taala ba ca kaw kaw ba nga xamanteni téré bi nga xam borom bi subhanahu wa taala bind na ko muy alxuraan sax bëggul won mu fét dara am fété ko kaw motax mu jëloon téré yi teg ca kaw mom muy nekk ci suuf non la fonké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba tuddé bopam khadimu rasul muy xaleelu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon koku ku nekk war nga nako xam ba xamni ki ku wéetaloon boppam la ku eh, wéetaloon borom bi subhanahu wa taala la woon ku amoon tawxid la woon fépp fu mu nekk ak fu mu mënti jëm tawxidam boobu moo ko doon jàppale ndax yàlla subhanahu wa taala ku ko gëm wéetal ko rek mu jàppale la nga tawxid boobu mu amoon dafa dem ba nga xamante ni bi mu commencé mission am te mission am mooy lan mooy tasaare sunna taxawal kàddu borom bi subhanahu wa taala topp sunna yonente bi sallallahu alayhi moo doon mission Cheikh Ahmadou suñu maam jooju looloo doon mission am ba mu koy commencé mission boobu am na ñaan goo xamante ni daf ko ñaanoon borom bi subhanahu wa taala pour yàlla dëgëral tax taw tawxiitam pour yàlla may ko pas-pas boo xamante ni bu dëgër la nekk suñu genre yi nga xamante ni dangay ñëw di ñaan yàlla na ma yàlla may alal gu bare yàlla na ma yàlla may kër yu bare yàlla ma yàlla may oto yu rafet yàlla na ma yàlla may lii yàlla ma yàlla may waaye ñaan lu woon benn mbiru àddina waaye dafa tàllal borom bi subhanahu subhanahu bind na ko ci bind mu ne ko ahaddu habli afdala tawxiidin bi xurmati Moustapha waxiid mu ne ko yow borom bi subhanahu wa taala nag ma may maa ngi lay ñaan man gën di tawxiid tawxiid bi gën maa ngi la koy ñaan ci barke sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku di commencer mission ñaane woo ko benn matériel ñaane woo ko dara lu dul ñaane ko yàlla subhanahu wa taala dëgëral ma sama tawxiid may ma gën di tawxiid kooku kuy dem ci moom ngir dikk a màggal war nga xam lool ba xam ni foo mënti ka feetee tamit jiitalal tawxiid bu ko defee doo réer te doo fa def dara loo xamante ni naka sudul noonu la kooku mooy Cheikh Ahmed Bamba mooy ki nga xamante ni bind na plus de cent livres lu ëpp téeméeri livres yoo xamante ni ci tawxiid lay wax lu mu néew néew bind na téeméeri livre ci yépp ci tawxiid lay wax yàlla kenn la yàlla kenn du ko bokkaale yàlla yemul ak dara yàll yemul ak kenn yàlla moom rek la bi di ko bind di ko bind di ko bind ba mu nekk au minimum cent livres kooku defe naa kuy dem di ko màggali war nga xam kii fi mu tolloon ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala ak ni mu amee woon tawxiid waaye loolu aussi daf ko doon ci waajuram bu jigéen waajuram bu jigéen la ko doon ne ndax suñu maam bu Bousso mi nga xamante ni mooy waajuram dafa nekkoon koo xamante ni alxuraan daf ko jege woon di jàng alxuraan teel wàcc nag alxuraan foo ko fekk mu ngi téereem di jàng lu mu nekk si biir këram di liggéey ci liggéeyu kër géeg yépp du tere mi ngi fu mu toll alxuraanam ci noonu aussi la jege woon borom bi subhanahu wa lépp daf ko doon delloo ci borom bi subhanahu wa taala looloo indi euh, maam jaar bu so bi koy wooye jaar yettulaa bi looloo ko indi nu mu bëggee woon jege borom bi subhanahu wa taala ak ni mu bëggee woon alxuraan moo indi jaaretulaay bi kon kooku mooy ki waajuram bu jigéen te it mooy ki ko njëkk a jàngal jë njëkk dugal alxuraan ci dëndam njëkk ko formé kon c'est normal que mu nekk koo xamante ni ku am euh, tawxid la kon tawxid boobu la nekkee woon képp kuy dem xamal loolu te nga bàyyi ci loolu ci sa xel yàlla subhanahu wa taala ay yooni yooni yoon daf ñuy wax ci alxuraan nañ ko wéetal ay yoon subhanahu wa daf ñuy wax bu leen ma bokkaale ak kenn ayon subhanahu wa taala fay wax ni man rek la fep fu ngeen meunti nek ak lu ngeen lu len meunti dal ak situation bu ngeen toll man rek la bu len ma bokale ak ken bu len ma bokale ak dara wa'budullah wala tushriku bihi shay'a lol yàlla subhanahu wa taala wax nako ayon bi sortu ni sa amna fa 36 ak yenen ay yon borom subhanahu wa taala diko wax fu mu toll donc lol subhanahu wa taala daf ñu yàgg wax ñu wéetal ko Cheikh Ahmad Bamba xamoon na lool moo tax yemalewul woon ak yàlla kenn yemalewul woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn te moom itamit bëggul ku ko yemalee kenn wala ku ko yemalee eh, dendale ak yàlla wala ku ko dendale ak yonent bi eh, sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne man eh, Mbàkke képp koo xamante ni jàppe nga ma kenn jàppe nga ma leneen lu dul jaamu keneen ku dul jaamu yàlla subhanahu wa keneen ku ku topp yenn sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ku ku ma ku ma jàppe leen keneen ku dul loolu rek man dama lay jàpp koo xamante ni danga am feebaru bopp pour bañ a wax da ngaa dof koo xam ne man Mbàkke jël nga ma teg ma place jàpp ma keneen ku dul eh, jaamu yàlla wala keneen ku dul eh, topp sunna yonent bi sallallahu alayhi man jàpp naa la koo xamante ni da nga am feebaru bopp kon loolu képp kuy dem màggali war nga ci bàyyi sa xel xam ne su moom Cheikh Ahmad Bamba jaamu yàlla la jàppe woon boppam topp sunna yonent bi sallallahu alayhi la doon def képp kuy dem nag yawit jaamu jil yàlla topp jil sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee doo fa def dara loo xamante ni naka su dul noonu la kon yàlla subhanahu wa taala ni mooy rek laysa kamislihi shay'un bi mu wax amul dara lu ko nurool amul dara lu mu dendal amul kenn ku mu dendal ci lepp lu mu mënti doon motax nak lélé ñun dañu tooñ suñu bop ndax dañuy dugg ci lo xam moy indil eh, bokalé wala wutal borom bi subhanahu wa taala morom té li na ñun jigen ñu kay commencé ci buñu amé tolof tolof wala ñu am duñu wara dugg wala dañuy dem sét ji kenn ni ko da fanaanoo ma nga sétal ma su ko defee koku daani jël mo xam per kurus wala ndox wala bant wala lu mu jël di la seetal fanaanoo la ñaari fan ñetti fan mu woo la ah li ma gis te nangam lii de bu ci dugg sa projet bii boo ci diggee nangam oto bii bu ko jënd kër gii bu ko jënd wala mu ne la ah gis naa ci lu baax de duggal projet de mariage bii foofu la bokkaale di commencé nag foofu la ñuy commencé nag am na ñoo xam dañ lay naxe alxuraan laay seetal di la ko naxe waaye li am ba am mooy yant bi sallallahu alayhi wa nee na kumpa yàlla subhanahu wa taala mooy kii nga xam motax dang bu fekente ni da nga am tawhid di wetal borom bi subhanahu wa taala li nga xamni ken xamul li ñëw ëlëk lu do subhanahu wa taala ndax daf ko bindu bu yag ci lawhil mahfuz bindu na bu yag li waaj ñëw motax mom rek moko xam sallallahu alayhi wasallam neena même ki kay wax setal la ba pare ni la li la même boko ko dundu ko sax neena du deug yàlla jey nako ba nga gis ko rek waye neena du deug motax yow boy dugg ben projet en tant que julit ta nga am tawhid moo xam da ngay waaj dugg ci mariage moo xam dafa am kër gooy waaj wut moo xam oto booy waaj wut moo xam projet bu mu mënti doon booy waaj a dugg yow defal li nga xamante ni moom la la boo yonent bi sallallahu jàngal ci salaatu istixaar julli sa ñaari ràkk ñaan ñaan ba mu daan ñaan nga xamante ni dangay ñaan yàlla subhanahu wa taala lii may waaja dugg su gënee ci man gën ci sama dund gën ci sama dee gën ci sama lépp yàlla may ma ko su gënul ci man nag yàlla bul ma ko may ñaan boobu soo ko ñaanee julli ñaari ràkk ñaan ko tëdd yàlla subhanahu wa taala soit mu wan la ko ci gént wala mu orienté la ci li gën ci yow orienté la ci nga def sa bopp moo gën foofu keneen defal la ko kon loolu nañ ci bàyyi xel foofu la ñuy commencé duñu naxe naan ñuy ci alxuraan laa koy seet teg ci lii donc képp kuy dem tamit màggali xamal ni eh, tawxiit boo ko amee doo dugg ci détail yooyu ay seetal maag xoolal ma ndax moo lay indi ci bokkaale te bokkaale yàlla ci yàlla musal ndax yàlla subhanahu wa moom nee na bàkkaar yi doomu aadama yi di def mën na ci baale yépp ba mu des bokkaale bokkaale moom dafa nekk lu diis loo xamante ni yàlla subhanahu wa nee na du ko baale wutal ko moroom moom du ko baale moo tax mu ñuy wax ni zalika bi anna allaha huwa alxaq wa anna ma min dunihi lbaatilu wa anna allaha huwa huwa alaliyu lkabir amul leneen yàlla rek mooy dëgg mu ne nag lépp wala keneen ku ñu mënti jaamu ku dul moom nañ xam ne loolu du lu baax lu bon la ay caaxaan la ay foo la moom rek mooy dëgg leneen lu dul moom du dëgg caaxaan la nee na moom mooy ki nga xamante ni moom moo xam lépp te moom mooy koy màgg ki yàlla mooy ku kawe ki yàlla mooy ku màgg ki keneen koo yaakaar ni màgg na ba nga war ko teg place yàlla yàlla nee na du dara koo xamante ni foor na ci yow ba nga yaakaar ci moom lu ne ba war ko mën a jaamu yàlla nee na yàgg moom yëpp du ngeen dara kooku du dara donc na xam ni borom bi subhanahu wa mooy ki nga xamante ni mooy ki gën a kawe lépp mooy ki gën a màgg lépp moo tax bu ñu kenn dugal ci yenn détails yi képp kuy dem bu la kenn dugal ci benn détail li nga xamante ni mooy ñëw ëllëg yàlla subhanahu wa nee nañu wama tadri nafsun maza taksibu àddan amul benn jaam boo xamante ni yow xam nga li nga xamante ni moo la war a dal suba loo sootu Luqmaan la nekk ay 34 yàlla subhanahu wa nee na amul benn mbindeef bu mu mënti doon ak noo mënti day boo xamante ni xam nga li nga xamante ni moo la war a dal ji ëllëg yàlla lii laa bëgg yàlla lee laa bëgg di nga sabablu aussi li nga war a def di nga ko def ba mu mat bàyyi nag ci loxo yàlla mi nga xam ni dogal na bu yàgg te dara ñëwagul kon loolu il faut ñu xam ko tawxiid mooy li nga xamante ni mooy jiitu te mooy li nga xamante ni mooy li mujj ndax yàlla subhaanahu wa taala ba mu lay bind yëguloo ba mu lay bind fekk ba muy bind ñi la indi ci àddina ñi mu jaarale sa ñëw ci àddina yëguñu fekkewuñu kon bu la kàttanalee say waajur kàttanal leen ba ñu indi la jaarale ci ñoom nga gane àddina li war rek mooy delloo subhaanahu wa taala xam ni moom rek la xam ni moom moo sañ lépp lépp lu la dal moo ko sañ lépp loo mel moo ko sañ lépp loo amit moo ko sañ ndax ñun léeg-léeg ñu gëm yàlla nag ba ne dañoo du ñu bokkaale ak borom bi subhanahu wa taala mais am na côté boo xamante ni foog ñu xaw fa weddee tuuti xaw fa bokkaale tuuti walla am am léeg-léeg nga ne man mii kat li ma am kii moo ma ko xañ diwa ma xañ dañ maa liggéey sama nàngam bi sama kii sama lee ñoo ma def lii ñoo xañ li naroon ñëw te xamuñu xam nga xamuñu ni yàlla subhanahu wa taala moom moo lay wërsëgal bind sa wërsëg bu yàgg yàgg balaa ngay gane àddina kon loolu ku nekk war naka xam-xam ne loo am yàlla la loo mën yàlla la lu la dal it yàlla la lu la dal bi tamit léeg-léeg ñu xaw ko négligé lu la mënti dal nga féetale ko feneen wut lu ko indi léeg-léeg nit day ñàkk sax euh, euh, doomu aadama comme dund ak dee ñoo ànd léeg-léeg kenn génn àdduna ci kër bi du euh, kër duñ ko delloo subhanahu wa ñu dem wutil sababu dee googu ba mu rombeekee ba mu jaaree fële ba mu defee nii ba mu defee nee xool ba mu ko xool lam ko jox mu lekk lam ko jox mu naan alors que subhanahu wa bindoon na kañ lay dee ak naka lay deewe kon loolu tamit buñ ci sàgganee tuuti rek bokkaale moo nekk loo xamante ne dafa dafa sew dafa yomba nit ki dafa yomba bokkaale ndax dafa nekk loo xamante ni lu sew la lu jar a bàyyi xel nag nañ dañ war a delloo suñu bopp si borom bi subhanahu wa taala doomu aadama bi pour mu féex wala jullit bi pour mu nekk koo xamante ni ku féex la day lépp lu ñëw rek da koy delloo subhanahu wa taala moo tax ponki ngëm bokk na ci gëm ndogal bu neex ak bu naqari moo ko tëj ginnaaw bi mu cité ay gëm yàlla ak gëm malayka yeeg gëm téere yeeg gëm Euh, yonent yeeg gëm ndogal moo ko tëj ndogal buñ ko waxee nag lu neex la ak lu naqari lu neex day ñëw lu naqari day ñëw waaye bu lu neex ñëwee ñu sant ko subhanahu wa taala bu lu naqari ñëwee aussi nañ ko delloo borom bi subhanahu wa ñaan yàlla mu defal ñu lu gën loolu waaye buñ ko yóbbu fenn te buñ ko féetale fenn ndax moom rek mooy kii dogal li ko neex moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa nit ñu wa in asaabaka shay'un فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعله bu la dara dikkalee ndogal benn ndogal dal la dal ci sa kaw ak lu mu metti metti bul ne kii la wala kee la wala nàngam la wala lii la nee na delloo ko yàlla subhanahu wa taala xam ne moo ko dogal ndax nee na soo deful loolu kat yaa ngi yee jëfu seytaane yàlla nañu yàlla musal nag ci yee jëfu seytaane ne seytaane moom ku yee jëfam moom mu boole la ñu boole la ci kuréelam rek ku ñëw ànd ak seytaane di ko fekk si ci ay jëfam ñu boole la ci kuréelam yàlla nañ ci yàlla musal kon daal tawxiid mooy li nga xamante ne jullit bi moom la war a jiital ci boppam wéetal yàlla subhanahu wa taala bañ ko dendaale ak kenn walla lenn ci eh, ay attribut ci ay eh, ndogalam ci ay eh, melokaanam lépp lu mu mënti doon ci yàlla subhanahu wa taala ñu bañ ko dendaale ak kenn comme ni ko suñu maam jooju ñuy màggalal di Cheikh Ahmad Bamba Mbàkke defe woon ni mu gëmee woon yàlla subhanahu wa ni mu delloo woon boppam ci yàlla subhanahu wa ni mu yaakaare woon subhanahu wa taala noonu islam yi nga xamante ni ñoo ko doon xeex pour bañ mu taxawal kàddu borom bi ak bañ mu dund sunna yonent bi sallallahu alayhi wa tubaab ya ba ñu ñëwee di ko sonal lan la wax dafa ne man sama arme ak yi sama arme ak noonu islam yi sama jaas yi nga xamanteni mom lay laay ak ñom moy tawhid lool keñ leer na nañ tawhid moy li nga xamanteni mom lay laay xeexee ak noonu islaam kon képp ku ko jàppe comme guide wala képp ku ko jappé comme ni mom ngay moy sa sëriñ xamal tawhid la jitalon yamalewul yàlla subhanahu wa taala ak dara yamalewul yàlla subhanahu wa taala ak kenn tànkam mu tek ko fi yalla nti bi sallallahu alayhi wasallam tekon tànkam kon li daal yóbbalu màggal la goo xamante ni képp koo xamante ni da nga fas yéene célébré màggal gi nga xam kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke. Euh, li sax lu tuuti la ci li ñu xam ci moom waaye lañ xam ci moom lu baree bare bare bare bare la loo xam ne ay télévision jeexalu ko ay wax la yu bare kon képp koo xamante ni Cheikh Ahmad Bamba Mbacke suñu maam jooju fas yéene ka ka màggalal exilam bii xamal ni moom ci tawxit la nekkoon ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaam la nekkoon lépp loo xamante ni doon na ko def ci yàlla subhanahu wa la ci doon yaakaar lépp lu mu doon ñaan borom bi subhanahu wa la ko doon ñaan moo tax armam bi comme ni mu ko waxee jaasi ji mu doon xeex noon yi mooy tawxiid yàlla yàlla jubal ñu yàlla xiir ñu ci boppam yàlla defal ñu tawxiid boo xamante ni bu dëgër la boo xamante ni duñ ko bokkaale ak dara ak aqulu xawli haza wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh